yoon day waral ci ku amee lu ëpp benn soxna mu yemale leen balaa sañ a takk sax lu ëpp kenn da koy wóor ne dana leen mën a yemale waaye bu ragalee ni sax du leen mën a yemale ci ni ko yoon santaane kon na bàyyi bañ a takk keneen te yem ci kenn fa in xiftum alla taadilu fa waaxida ñàkk yemale soxna yi moom dañ koo diisal lool addis ba teg ko ci lool wax ne ku amee ñaari soxna te yemalewu leen maandu seen diggante su ñëwee bis penc day mel ne jëmmam boo ko defee ñaari xaaj benn xaaj ba day jàng jëm ca wet ga na mu jànge woon jëm ca kenn ka day feeñ ci jëmmam jëmmam du nekkati jëmm ju sotti xan abi hurayrata ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala man kaanat lahu imra'atan famaala ila ihdaahuma jaa yawma alqiyaamati wa shiqhu maa'il axrajahu abu daawud fi nikaax wa tirmidiyu fi nikaax aydan bu doon jamono yi jaam amee itam ku yore soxna soo xam ne jaam la ak koo xam ne gor la it du tee rek mu war dee na yamale yamale gii bu dee nag jaam bu jigéen bu moom rek moom nga xam ne ab taaraam la du ko wutal ak ay saa yu saa yu ko soxlaa rek jotee moom waaye du am ak ay ne gor ya yamale soxna yi yor nag ci wàllu nekk ga rek lay ware ci wàllu nekk gi moom moo xam day def nekk fa kee guddee bëccëg jàll nekkaa fa kee guddee bëccëg mbaa boog lu ëpp loolu mbaa lu ko yées moom daal faaw mu war a natt jamono ja nga xam ne moom la seq ñoom seet na leen koy séddalee bu dee kenn ku ne daa am kër boppam mbaa néeg boppam te moo koy fekki baax na bu dee itam ñu fii baaxoo def ci réew mi mooy du ci ëpp jigéen ji mooy fekk si góor ga itam buñ bokkee génn kër lu ci mën doon rek nañ seet nañ yemalee nekk gaag kee ak nekk gaag kee yemale googu nag muy séddale googu nekk gi mënta ñàkk donte sax am na ca koo xam ne yoon mayul góor gi mu jotee moom ci sawukaay mel ne bu soxna sa tolloo ci armal aj mbaa umra kon góor gi du sañ a jotee moom te yëwi ko wut ca loolee mu armal wala bu fekkoon ne soxnaam da koo jihar jihar mooy muy soxnaam yaa ngi mel ni ci man ci misaal sama gannaawu yaay maanaam daal nuróole ko koo xam ne araam na ko araamuk dapet loolu am na ati ci kanam ku mel noonu li feeg defut alamaan dañ koy wax du sañ a joteeg moom wala du fekkoon ne soxnaam sawukaay ba dafa taqaloo ba mënta joteeg moom wala soxna sa ngaana ngaana goo xam ne mën naa nekk moom te du ko wàll lu ci mën doon rek bu xasee doon soxnaam moom faaw rek mu jox ko ak ay bu kenn ko toll woon ci gis dereti wasin sax nga xam ne ba tey du mën a joteeg moom mbaa dereti régal ji rek du tee bu fekkee day wër nga xam ne moo ñu fekk ci seeni kër mbaa seeni néeg ku ci aay rek war naa dem foofa bu ne nag nekk gi rek lañ wax ne moom la war a séddale ñu yemoo ca waaye nag jëmmi jote ga ci sawukaay bi wala jëmmi koddaay la mbaa jëmmi nekkuwaay ba mbaa jëmmi dund ba niki dépasse ba moom mën nañ caa bañ yemoo kenn ku ci nekk mën nañoo seet la yàlla ci moom ñu ko koy jox te nag ñu jàpp ne bu fekkee ne ñoo bokk benn barab buñ nekk yemale leen mooy gën a rataxal seen diggante gën a yombal nekk ga waaye bu nekkee ci benn barab moom te yemale leen ci koddaay mbaa dëkkuwaay mbaa ab dund loolu mën naa andi naqarit nekk ga bi wax ne itam kum aaye ci moom rek faw mu joteeg moom bu sawaree joteeg moom bu sawarul bàyyi li mu ne moo araam nag mooy bu kee aayee mu tey ko bañ a joteeg moom ngir bëgg rek bu àggee ci ka ca des gën a mën jote ga loolu moom dafa araam muy nag ku aaye te joxu ko aaye moom moo xam ngànta ko waral moo xam moo ko tey jeex na kenn du ko fay ayam googee ndax bis ba mu koy fayee nekkul ko moom kon nag du kii aaye woon mu tey ko bañ koo jox ak ayam itam say boo mu jégglu ko waaye du ko mën a fay ay googee te jàll rek ci kësës ca moom moo tax mu teg ci wa in zalama ak doonte tooñoon na ko doonte sax ñàggam ko ñàkk jox ayam li mu tay la du tax rek mu fay ko ko loolu dëkkul fii waaye dañu mbiroo loolu mu far ko fi waxaale jamonoy jaam amee ab jaam bu lennam goree genn wàllam genn wàll ga ca des goriwut kon bis bee moo koy moomal boppam bis ba ca des ka moom genn wàllam moo ko moom mu ne nag jàmboo bu dawoon bu ñëwaatee itam moom mi nga xam ne moom moom genn wàllu jàmba du wax ne daay fayu fan yi mu dawoon nga xam ne daw ma jox saa bis dañu tàmbaliwaat rek jàmba di def tey mu féete boppam bu ëllëg saa mu féeteeg moom mi moom genn wàllam bu doon jàmm boo xam ne itam léppam ak njaam la waaye ci misaal ñaar da koo bokk mu def nag bu nekkee ci bis jàll cekkee mbaa sax muy def bu nekkee ci ayu bis mbaa weer jàll ci ko ca des am yoon bu mu dawee nag bañ jàpp ko ka nga xam ne ba muy daw moom moomun ayam day ñàkk rek du mën du mën a wax ne damay fayu jiw bi mu dawoon taa waroon moom liggéey ba bu ma fayee ba noppi mu door a jàllaat nag ki ma ko bokkal moom daal dañu tàmbaliwaat rek mel ne lu yees loolu daal mu rek li mu waxoon ne jigéen ju amuk ay jëkkëram xañ ko ko doonte moo ko tey du ko ko fay loolu rek la bëgg a wax ne moog lii ñoo yemoo na muy séddale ay soxnaam ci nekk gi la ne mën na koo def bëccëg ak guddi guddeeg bëccëg daal mu ne bu ko neexee muy tàmbalee ay ba ca guddi ga ba jant ba soxaat nga xam ne bu jant bi sooyee daal fii la moome ba jant ba soo ci ëllëg sa mu door faa bàyyi ko jàll ci ka ca des ba tey mën na koo tàmbalee ci bu jullee fajar mbaa bu jant bi fenkee rek mu daal di dem fa kenn nekk ak moom ba waxtu ñëwaat ca ëllëg sa mu door caa bàyyi ko jàll ci ka ca des waaye nag ni mu waxe moom tàmbalee ca fa jant ba soyee ba jant ba soxaat la ñu gën a taamu nee na daa mel ne nag suñu barab yi moom dañ koy tàmbalee ci fi jant bi fenke ba jant ba fenkaat daa mel ni fii daal moom loolu lañ ëpp jëfandikoo ci kaw loolu nag ku tukki ba ñëw moo xam ca bëccëg ba la wala ca guddi ga la da ngay wàcc fakka nga xam ne moo aay ca bis boobee loolu moo gën a maandu dégam ñu ngi tàmbalee ci fi jant bi fenkee ba jant bi fenkaat nga xam ne kon ka aaye moo moom bëccëg ba mu jiitu guddi ga ku tukki woon bay door a ñibbi si kam fekk mu aay rek na wàcc fa moom wàcc fa ka aay ca bis boobee daa gën a maandu waaye ni sara bi waxe moom bu bàyyi ko ci tukki day tànn ku ko neex rek mu wàcc fa moom koo xam ne benn soxna rek la yor mbaa foofee mu nekk moom benn soxna rek la fa yore sopp nañ muy fanaan ak soxna soosee bañ ko bàyyi moom rek te sax bu demoon ba ñimu wut te foofu moom soxna sa mbaa ragal nañ ne dara mën na koo lor te du gis ko ko aar kon fanaan gaag moom sax day soppi ku lu war mbaa boog bu di ko wutal koo xam ne moo koy yëttali daa waxoon ne bu dee séddale nekk ga da koy def ku ne am guddee bëccëg mu ne nag bu leen neexee ñoom jigéen ña ñu def lu ëpp guddee bëccëg ba lu ko yées bu leen neexee ñu juboo ci day nekk ak kee ñaari fan jàll nekk ak kee ñaari fan bu leen neexee itam sax mu ëpp ñaari fan bu fekkee ne sax day ñaari dëkk yu bokkut man nay def bu amee fee weer dem am fee weer mbaa bu amee fee nangami weer dem am fee nangami weer lay cosaan mooy moom góor gi ci boppam ku aaye moo koy fekk ca néegam baa nga ne ci këram mu ne waaye nag buñ ko amee déggoo mën na ku aaye rek ñëw fekk si ko ci barabu boppam ni ki bu kër yoo bokkut it ku aaye ñëw fekk si ko ci këram mbaa bu dee génn kër mu am foofu néeg moom jëkkër ji saa yu aaye rek ka aaye fekk si ko ci néegam loolu bu ci jigéen ñi àndee baax na mu ne itam moom jëkkër ji sañ na defal ay soxnaam kenn ku ne néegu boppam ak wanagu boppam ak waañu boppam ba noppi nag def wenn sàkket rek mu wër leen ñoom ñëpp nga xam ne kër gi moom genn gee wenn sàkket moo ko wër waaye kenn ku ne am na néegu boppam ak wanagu boppam ak waañu boppam kenn ku ne am néegu boppam am wanagu boppam am toggukaayu boppam moom ba noppi nag mu boole leen wenn sàkketu kër loolu moom jigéen ñi sañ ñu ko bañ bu ne moom laay def soxna yi duñu sañ a bañ moo tax mu ne walaw bi xëyri ribahuma mu ne nag bu ca jubóog soxna sa mën na mën naa bañ a yemale la muy nekk ñoom mel ni nekk kee ñaari fan nekk kee benn wala nekk kee ay bis nekk kee ñaari fan ba ñett loolu lépp buñ ca juboo rek dara nekku ca ndax ak jigéen ji la su ko bàyyee da ko sañ a bàyyi bàyyi ko kon bu ko neexee mu jekki-jekki may loolu jëkkëram muy nekk gu jëm lu ëpp li mu nekk moom bu ko neex itam mu ne ko ba ma joxee nangam ma defal la loolu maanaam ba ma joxee nangam ma may la li ngay nekk sama wujjuwee ëpp li ngay nekk ak man loolu nag ak jàpp ndal la buñ ne rek bu nangoo moom la lay nekk wujjum ëpp du wàññi dara boo ko dee seetlu mën naa am nga am barab ba ngay liggéeyee soxna nga xam ne moom foofa la dëkk te sëy seegut mel ne sa soxna bu jëkk moom nekk ca sa dëkkub cosaan fi nga xam ne fi ngay liggéeyee te am fa soxna ah doo ko mën a yemaleeg ke nga xam ne moo nekk ca dëkkub cosaan ba ndax li ngay nekk fi ngay liggéeyee moo gën a yàgg li ngay nekk foofee nga cosaanoo loolu nag boo ci waxtaan nekk soxna su nga bàyyi ci kër ga rek ba nga xam ne du la ca jàppal dara rek mu daal di baax soxna si mbaa baayam mbaa keneen mën naa jox jëkkër ja alal ne ko nag dañoo bëgg rek kim lay dénk nga téye ko bu baax yor ko bu baax te bañ ko wàcc wax na ci gannaaw ne bu fekkee soxna si ci boppam moo yëkkati alalam jox jëkkëram ne ko damaa bëgg nga téye ma bañ maa wàcc kon su yàggute moom dal koy wàcc mën naa nangu alal joojee daa waxoon ne nag bu ko yoree lu mat ñaari at moom bu ko wàccee itam du tax mu sañ a nangu alal joojee waaye ndega muti ñaari at moom mën naa nangu alal joojee fekkee da ko taxoon alal ne ko ci kaw li fi maa ngi yow doo takk keneen it waxoon na ne saa yu takkee keneen rek mu daal di sañ a nangu alal joojee daa bëggoon ne ne bàyyu jigéen ji mbaa yaayu mbaa keneen yëkkati alal jox jëkkër ja ngir bëgg mu téye soxna sa bu baax jëkkër ja bu mu jàpp ne lekk alal jaambur ci neen la loolu dagan la wàññiwul dara mu ne jëkkër ji bu jubóog kenn ci soxna ya mu jaay ko ak ayam dara nekku ca bu ko kenn ko si jaay ak ayam nag kon moom moom ay googee ku ko neex la koy jox moom mi nga xam ne moo aaye bu la nee mayuma la ay gi dëgg-dëgg jaayuma la ko waaye mën ngaa joteeg sama wujjee du ma naqar du ma ci wax dara kon moom jëkkër ji mën naa joteeg wujjam woolee ki nga xam ne moom aayut nga taxaw ci buntu ba nuyu ko rek mbaa laaj ko loo xam ne daa nekk ci néegam te nga yittewoo ko dara nekku ca mu ne soxna si aaye boo demee ci moom mu tëj buntam nanguwul nga jàll si te amul lu mel ne ab saal boo mën a fanaan kon mën ngaa dem ci wujjam fanaan ak moom ndax ndega moo la aaye boppam tëj buntam te amul fenn foo mën a fanaan ca fa mu nekk mën ngaa dem fanaani ca wujjam kenn ci soxna yi bu ne sama wujj yi may naa ko sama ay kon jëkkër ji mooy seet bu ko neexee dem ca kook yow may ay ga bu ko neexee ne ku man du ma dem ci moom yow laa soxla du ma dem ci moom buñ ko nee nag may naa sama wujjee sama ay ñu wax ne jëkkër ji bu ko neexee nangu bu ko neexee gàntu ne ko man yow laa bëgg a nekkal su xësee ba nangu may googee moom ñu jëm woowee ñu may ay ga rek ca la mën a dem moom mi maye ak ayam bu ne sooda jóob mais laa ko may kon jëkkër ji bu nangoo may googee ci sooda jóob moomee dong lay mën a dem du mën a dem ci keneen mais nag bu fekkoon ne soxna si daa wax jëkkëram ne ko yow ci sa bopp may naa la sama ayub tey ndega moom jëndul ay ga soxna si moo ko may ne ko may naa la sama ayub tey bu ko mën a jagleel kenn ci soxna ya day jàpp ne moom mi may ak ayam moom génn na mu xool na kësus ca moom mu dem ca moom waaye du mën a seet ku ko neex rek mu dem ca su fekkee ne jëkkër ji ma wax kenn ci soxna yi ne ko jaay ma sa ay mu jaay ko ko ba moom ko kon ma jëkkër ji ku ko soob rek ca soxna ya moom lay féetale ay googee mu jënd ki may woon ak ayam la wax ne bu ko neexee bëlbatiku ne maa ko may woon nanguwaat naa ko duñ ko wax ne ko boo xasee maye sax ay rek doo ca sañ a del ci gannaaw bu ko neexee mu del ci gannaaw ne li mu may woon nanguwaat naa ko ku aayawut rek doo sañ a dugg ci néegam loo soxla ngay taxaw rek ci buntu ba laaj ko lu may nag nga am fa soxla soo xam ne mënoo ñàkk dugg ca biir kon boo duggee ca biir daral du gaaw def la ngay def rek aajo ja mat nga daal di génn waaye gannaaw bu aajo ji matee doo fa sañ a toogaat dara lum tuuti tuuti mooy nag jamono yi nga xam ne ñu amoon sangukaay yoo xam ne dañu ko daan dugg di fay di sangu góor gi du sañ a ànd ak ñaari soxnaam mbaalu ko wëpp dem ca sangu ànd seen jëkkër dañuy sàggan ci sàng seen awra dëgg la moom mii seen jëkkër mën naa xool awra yi ku ci ne ñoom it kenn ku ci ne mën naa xool awraam moom mii seen jëkkër waaye nag moom ñaari soxna ya amu ci kenn ku sañ a xool awra yi moroom ma ba tey mu ne du sañ a bokk tëddum ñoom ci benn lal ñaari soxnaam baalu ko ëpp bu bokk ñoom tëdd ci benn lal dañoo jëlale dete kee kee di xool loolu moom ku ne xam ne ne araam na waaye day wane ne bokk ga tëdd ak ñoom ñaar ci benn lal rek du ko sañ jamono yi jaam amee itam boo amee ñaari jaamu jigéen duñ la may nga bokk tëdd ak ñoom ci benn lal donte sax tëdd kese la nga xam ne ak jote amu ca am na lu ñu wax ne bu dee jébbéer yi moom te jote amut bokk tëdd rek la dana ko man mu ne ku am soxna su yees fekk mu yoroon kenn mbaa lépp kenn soxna su yees si bu fekkee ni xiig la maanaam gone la nekkul jeeg day yem ci moom rek nekk ak moom juróom-yaari guddi ak seeni bëccëg door a tàmbalee nag ay ay loo bu soxna su yees sa nekkee jeer nag mu nekk ak moom yetti guddi yu ànd seeni bëccëg door a tàmbalee yemale mu ne nag muy gone gi muy jeeg bi ku nekk lañ ko waxal ca la ñuy yem bu bëggoon lu ko ëpp itam deesu ko nangoo bu ñu ko andiloon ñaari seet nag ci genn guddi am na ñu ne day tege ay bant am ñu ne moom mooy seet rek jërul te koy bant ku mu ci jiital rek baax na Ibn Arafa day wax ne bu ci amee koo xam ne moom lañ ko njëkk a jébbal kon na jiital kooka bu ci amee koo xam ne te moom lañ ko njëkk a may nga xam ne ñoo ñëw doo di ay seet waaye may ga am na ku ci jiitoon ba tey nga jiitoon ca may ga lay jiital fekkee ñoom ñëpp la ñu bokkoon maye it kon te koy bant moom du mën a ñàkk buñ te koy bant nag mbaa ñu ne kee moo war a jiitu bañ jiital ko dañuy jox kooka la war a am ci ay fan door jox ko ca des bu kee dee jeeg kee di gone itam te ñuy njëkk jox moom dañ ko jox rek lim ba mu war a am door a jox ko ca des bu fekkee ne moom da daan wër ku aay rek mu nekk yow la war a nekk yow mu wéradi nag wéradi goo xam ne mënatul loolu kon dañ koy may mu seet ku ko neex ci ay soxnaam rek mu tëddee foofa tawat ja yooyu jamono jigéen ñi lu aju ci wàllu jaamu yàlla da leen yitteeloon lool tax booba googu doga tukki tukki boo xam ne ak jaamu yàlla la mel ne aju màkka day tege ay bant ku moom bant ba rek mu ànd ak moom ca tukki boobee bu dul tukki jaamu yàlla nag mel ne dem foo xam dafay liggéey di fa jaay ko jënd mbaalu mel noonu moom cee jamono ku ko neex rek la yóbbu mel ne mën naa seet ka nga xam ne moo ko gën a mën a dimbale te loolee mu daal di koy yóbbu waaye dañ ne nag suñu jamono ji moom loolu daa jëlloor ji ko li gën a yitteel jigéen ñi mel na ne mooy wàllu adduna gi ba tax na kon du yoree ay soxna day teg ay bant rek bu moom bant ba rek mu ànd ak moom wala boog mu di ko ay ayloo bu yóbboo kii am ak moom foofa nangam weer mbaa tat bu toll nangam jëloo si ko daal di yóbbuwaat keneen su fekkee nag loola dafa jafe man ne day ci bitim réew mbaa yooyu faaw day waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy des fii ci réew mi ba du ko ameel ak waxtaan ak moom daal xama ko ne ko kee may yóbbu moom nangam a tax ma di ko yóbbu nga bëgg nag nga bañ maa jàppe loolu bu dee nag demu kese la te ñoom ñëpp ñoo ko bëgg te kenn mënta bàyyee moroom ma kon faaw jëkkër ji day tege ay bant mbaa ni mu waxoon rek boo bookee bat sàngam mu nekk fa mu delloosi ko yóbbuwaat ka ca def